l'interdiction des manifestations publiques, la fermeture des établissements scolaires et des universités, le Sénégal a pris toute une série de mesures pour tenter de contenir l'épidémie apparue sur son sol début mars. ñi jëm xeeb feebar bi xamuñ li koy faj ba léegi non amul moo raw sax Ebola fa léegi masque yi ñu lay jox nii koy sol ndax fi mu ne booy génn rek da nga war a sol masque parce que masque moo lay aar aar sa morom ndax feebar bi da nga fi mu ñuy tere ñuy moytu ndaje bi nda ndaje yi suñ génte eh, yeeg yooyu loolu ah, gënul ak fu ñuy toog tamit ñu respecté distance bi ñuy respecté distance bi tam xale yi tamit surtout jigéen yi hmm. yéen na ngeen veillé si ñoom ñuy raxas seen loxo yi ba mu set wecc buñ génnee ñu koy raxas bu ndax bu fekkee amuloo gel alcoolisé tamit saabu olof bi ak ndox bi ñu koy utiliser ñu ñaan yàlla feebar bi jóge fi jàmm ci barke yaa ngi dimbali suñu médecin yi ci hôpital yi bu leen fàtte taalibe yi xale yi ci kër gi ñu aar leen ci lépp lu aju ci coronavirus képp ku yëg ay symptôme ci sa yaram mën nga woote ci numéro yi 15 15 wala 800 00. yéen tak takk masque yi di raxas seen loxo léegi yow yow yow asa kan moo ma mën a wax léegi masque yi lan lay jariñ si xale yi nii kan moo ma mën a wax masque yi lan lay jariñ yow xal lan moo tax ñuy takk masque ah lan moo tax ñuy takk masque yi yow ka laa wax ma lan mo ah, tax ñuy ha lan mo tax ñuy tak masque yi. pour pour sédd suñu suñu wër gu yaram. ah seet suñu wër gu yaram ban fièvre ma fi am bani sét seet suñu wër gu yaram. coronavirus coronavirus coronavirus moom lan nga sé xam ci fièvre bobu day fadé day fadé day fadé ah, ah. yen est ce yen kon yen li légui yen yen matuwaay ngeen war a jël yen bu nga démé ci kër yi. raxas suñu kër dañuy raxas suñu kër. dañuy takk masque. bu guddi bu guddi très bien jërëjëf jërëjëf jërëjëf sa loxo seet sa lépp seet bul nuyu kenn bul lëng kenn bul gën a kese ndax bëgg génn bul sëkkat fépp fu jege kenn sëkkat fee boobuy métti njëkk a feeñ soj problème mu nooy sen sa bakkeen sëkkat fee but buy métti malaise feeñ du rey nit ñuul si ñu xamul dëgg ak feeñ sa loxo seet sa doomi seet bul bisimilah rahmaani rahim salaamaaleykum waa ginnaaw raay noor ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam góor ak jigéen mag ak ndaw ah di leen xamal ni leen nag ci ah, balaa bi nga xamante ni moom la yàlla wàcce te nga xamante ni ñëpp ci jaaxle doomu aadama yëpp ci jaaxle te ñun nag ñoo ci rawati parce que ay jaboot lañu ba pare quartier balien lañu dëkk dañoo taqoo dañoo dëkk dañoo ànd doon benn ñuy wax rek li ñëpp di wax mooy ku nekk rek nay bàyyi xel boppam. rawatina xale yi ci mbedd mi xale jar na takkal max ndax lu tax xale jar a takkal max li mag di noyyi la xale di noyyi ah yónneen bu bare beeg yooyu bu fekkee mën ñu leen bañ a takkal max ñu téye leen ci biir kër yi tey takk max yi ndax ah, li nga xamante ni moom la wax amuñu ci pexe loolu lañu war a def muy raxasu ak saabu ba set di takk masque téye xale yi ah, wàññi dajaloo bi wàññi espace yi loolu la ñu digle ci ginnaaw raay noor ak fépp fu ko wër. di ñaan yalla nak match yi ñuy seddel nak buñu ñu sañoon dañuy seddel lu pay mars waye nak yoon yamul ci ben kon ci li lañu wara a ah ñu tambalé ko nak wa ginnaw ray nor Cheikh gey Ahmed ak ñi mu àndal ñëpp ñu tambalé ko pour seddel ay max nga xamanteni kenn ku nekk dal da nga wara bay sa war ci war wi ci lool lañu nekk en tant que gox mata kan ginnaw ray nor groupement féminin maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm wasalaam